juróom fukk yonent yàlla daawuda ak almasi bi
asalaamaaleykum mbokk yi nuy déglu nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci ñeenti njàng yi weesu doon nanu gëstu ci nettali yonent yàlla daawuda gis nanu ni daawuda nekke woon sàmm xalamkat taalifkat gëstukatu kàddug yàlla jàmbaar ci xare buuru israel ak ab yonent yàlla te ci njàng mi weesu gisoon nanu it ne daawuda bàkkarkat la woon te defoon na lu naqari yàlla lool waaye gisoon nanu tamit ni yàlla baale woon daawuda ay bàkkaaram ndax li mu tuub ay bàkkaaram ak xol bu toj te mokk te gëm li yàlla dige woon ci lu jëm ci ramukat bi naroon a gane ci àddina ngir gàddu mbugalu bàkkaaru doomi aadama yi tey jii nag danu fas yéene gëstu ci téere bu neex bi nekk ci diggu mbind mu sell mi ndax xam nga ban téere la mooy saboor téereb saboor mu ngi ëmb téeméer ak juróom fukki saar wala taalif diirub junni at yàlla jëfandikoo woon na yonent yu wuute ngir ñu bind saboor waaye daawuda mooy yonent bi bindoon li ëpp ci taalif yi nekk ci téereb saboor tey nag danu bëggoon a soobu ci ñaari taalifi saboor yu jëkk yi saar wu jëkk wi nag daf nuy won ñaari fanay nit ñi am ci àddina si ñiy aw ci yoonu njub ak ñiy aw ci yoonu njubadi saar wu jëkk wi bind nañu ci ne cëy nit kee barkeel ki dul jaar ci ndigali ñi bon mbaa muy taxaw ci yoonu ñiy bàkkaar te du toog ci jataayu ñiy gaaral yàlla waaye yoonu aji sax ji lay nooyee mu di ko gëstu guddeeg bëccëg daa mel ni garab gu sax ci bëti ndox di meññ ci waxtoom te xobam du lax lu muy def lépp nangu waaye ñi boñ duñu noonu dañoo mel ni xatax bu ngelaw li yóbbu moo tax keroog bésu àtte ba ñi bon ne dàll ñi bàkkaar ne mëll ci mbooloom ñi jub ndax aji sax ji fonk na yoonu ñi jub waaye yoonu ñi bon jëm sànku noonu ci taalif bu jëkk bi gis nanu yoonu ki barkeel ak yoonu ki sànku ñun ñépp dañu bëgg a barkeel kenn bëggul a sànku yàlla dafa bëgg ñépp barkeel itam waaye faaw nga jaar ci yoonu barkeel wi mu tëral ci taalif bi lan moo yoonu barkeel woowu mën nanu ko tënk ci ñaari xalaat benn bul topp ñiy gaaral yàlla ak kàddoom ñaar gëstul kàddug yàlla guddeeg bëccëg ba xam te gëm yoonu mucc wi yàlla tëral soo awee ci yoon woowu mbind mi nee na dinga mel ni garab gu sax ci bëti ndox te sa dund dina meññ doom yu neex yu mel ni mbëggeel mbég ak jàmm looy def lépp nangu léegi nag nanu jàll ci ñaareelu taalif bi nekk ci saboor ci saar wi yàlla xiroon na daawuda mu bind ci mbirum ràmmukat bi naroon a gane ci àddina nanu déglu bu baax xebaar bi nu yàlla jotale jaarale ko ci xalimag daawuda yonentam mbind mi nee na lu tax xeeti àddina di bax lu tax ñuy fexe lu mënula am buuri àddina dañoo booloo te kilifa yi dajaloo di bañ aji sax ji ak almaseem ñu ne nanu dagg jéng yi tàggoo ak buum yi ki ci jalub asamaana ngi ree boroom baa ngi kekku ci seeni pexe ba noppi mu gëdd leen ci biir mer xëbal leen ci xadaram naan man dëj naa sama buur ci siyon sama tund wu sell wi ma biral dogalu aji sax ji mu ne ma yaa di sama doom maa di sa baay tey ñaan ma ko kon ma jagleel la xeet yi nga moom ba ci cati àddina dinga leen falaxe ak yetu weñ di leen rajaxe ni ndabul xandeer léegi nag yéen buur yi am leen xel yéen kilifay kaw suuf déglu leen artu bi jaamu leen aji sax ji ci biir ragal tey bég ci biir weg sujootal leen doom ji ngir ragal meram jóg ngeen ne mes sànku ndax meram danaan milip wàcc waaye ñi làqu ci moom cey ñoo barkeel amin ndax jàpp ngeen bu baax li yàlla aji sax ji wax ci saar wi lu am solo la nag li nu ci mën a wax bare na waaye jot gi maynu nu faramfànce li nu bëgg lépp wante am na fi dara lu nun ñépp wara xam te fàttaliku ko ci taalif bi yàlla dafa ci yégle ñetti tur yu neex yi mu tudde musalkatu àddina si naroon a ñëw ndax dégg ngeen leen ñetti tur yooyu ñooy almasi bi buur bi ak doom ji nanu xalaat tuuti ci ñetti tur yooyu yàlla jox ramukat bi naroon a gane ci àddina ci bu jëkk gis nanu ne yàlla mu ngi ci tudde ramukat bi almasi bi almasi bi mooy baatu hébreu bi tekki ki yàlla fal ci tur woowu la yàlla doon xamle doomu aadama yi ne faaw ñépp gëm te nangu ramukat bi naroon a ñëw ndaxte mooy ki yàlla moom ci boppam fal ni musalkat ak àttekatu àddina si wante ci ñetti aaya yu jëkk yi nekk ci taalif bi yàlla yëgle na ci ni lu ëpp ci doomu aadama naroon na bañe almasi bi yàlla yónni nanu jàngaat aaya yooyu ñu ne lu tax xeeti àddina di bax lu tax ñuy fexe lu mënula am buuri àddina dañoo booloo te kilifa yi dajaloo di bañ aji sax ji ak almaseem ñu ne nanu dagg jéng yi tàggoo ak buum yi lu tax niti àddina si naroon na bañ a nangu almasi bi yàlla yónni ndaxte almasi bi dafa naroon na nekk nit ku sell ku taxul bàkkaar te képp kuy def lu bon day bañ leer gi te du ci ñëw ndax ragal ay jëfam di feeñ noonu yàlla doon na yëgle ci aaya yi ni yawut yi ak xeeti àddina yi naroon na likkoo ngir fexe daaneel nit ku sell ki yàlla faloon ni musalkat ak àttekatu àddina si waaye yàlla xamoon na lépp li nit ñu bon ñi naroon na fexe def te yàlla fasoon na yéene wëlbati seeni pexe yu soxor loola tax ñuy jàng ne ki ci jalub asamaan a ngiy ree boroom baa ngiy kekku seeni pexe kon tur wu jëkk wi nu wara fàttaliku te yàlla jox ko ramukat bi mooy almasi bi liy tekki ki yàlla fal ñaareelu tur wi nuy gis ci saar wi mooy buur bi almasi bi mooy buur bi jaare ko ci tur woowu yàlla dafa bëgg ñépp xam ne almasi bi mu yónni te nit ñi bañ ko dina mujj nekk kilifa ak àddina si ci bés penc ba ñépp dinañu sukk fa kanamam ndaxte moom mooy buuru buur yi kilifa kilifa yi ki yàlla fal naka noonu almasi bi dina nekk sa musalkat mbaa mu nekk sa àttekat ndax mooy buur bi yàlla fal ngir mu nguuru ba faaw ci ñetteel bi dégg nanu ci saar wi weneen tur wu yàlla jox almasi bi te nu war ci xalaat bu baax mooy doom ji yàlla dafa bëgg ñépp xam ne almasi bi moo di doom ji mu bëgg bala nuy faramfànce li tur woowuy tekki xëy na war nanu fàttaliku ne lépp li daawuda bind ci saboor bind na ko ak xel mi ko yàlla sol war nanu fàttaliku tamit ne dafay am ci mbind yonent yi léeg-léeg mbir yu jafe xam waaye loolu terewul muy dëgg nag looloo tax yàlla artunu ci kàddoom naan am na ci mbind mi sax yu jafe xam te ñi amul xam-xam te seen ngëm dëgërul di ko wëlbati ba alak seen bopp kon nanu denc xalaat boobu ci sunu xel te waxtaan tuuti ci ñetteelu tur wi yàlla jox almasi bi ci saar wi bind bi nee na ma biral dogalu aji sax ji mu ne ma yaa di sama doom maa di sa baay tey ndax dégg ngeen kon li aji sax ji wax almasi bi mu ne ko yaa di sama doom maa di sa baay ndax xam nga lu tax yàlla tudde almasi bi doomam ndax xam nga lu tur woowuy tekki ak nu mu mën a deme yaakaar nanu ne yéen ñépp xam ngeen bu baax li tur woowi tekkiwul ndaxte loolu tekkiwul ne yàlla dafa am soxna ba am ci doom mukk nun gëmunu loolu te mënula am sax ndaxte yàlla amul yaram ni nit yàlla xel la te du jur doom ni ko nit di jure kon nag lu taxoon yàlla wax almasi bi yaa di sama doom mën nanu gërëm yàlla ndaxte wax nanu lu tax amunu jotu jàll fu sore ci mbir moomu tey waaye danu leen bëgg a dénk ñetti xalaat yu leer yuy wone lu tax yàlla tudde almasi bi doomam ci bu jëkk war nanu xam ne yàlla tudde na almasi bi doomam ndaxte ci kaw la jóge képp ko xam mbindi yonent yi xam nga ne almasi bi jógewul ci góor waaye ci jataayu yàlla la jóge ni ngeen ko xame almasi bi amul woon baay ci kaw suuf ci lu jëm ci meloom ci àddina ci askanu daawuda la soqi ko ndaxte mu ngi juddoo ci janq bu bokk ci askanu daawuda waaye ci lu jëm ci wàllu baayam ci xelum yàlla dong la bawoo looloo taxoon yàlla mënoon a wax almasi bi ne yaa di sama doom maa di sa baay ci ñaareel bi yàlla tudde na almasi bi doomam ndaxte mbind mi nee na yàlla ak almasi bi ñoo yem sellaay mënunu ci sore léegi waaye bu nu àggee ci téereb linjiil dinanu gis ne almasi bi niroowul woon ak doomi aadama yi taq baakaar déedéet almasi bi waroon na gane ci àddina ngir musal baakaarkat yi ndax boroomi bor mën na fayal keneen ku am ay bor mukko almasi bi amul woon benn boru baakaar ba tax mbind mi ne almasi bi dafa sell du def lu bon du taq baakaar te bokkul dara ak baakaarkat yi kon gis nanu ni almasi bi selle ni yàlla mi ko yónni selle looloo taxoon yàlla rusu ko woona woowe doomam ci ñetteelu tomb bi nag war ngeen xam ne yàlla dafa tudde almasi bi doomam ngir ràññale ko ak yeneen yonent yépp gis nanu ba noppi yonent yàlla ibrahima ni ñu ko tuddee xaritu yàlla gis nanu yonent yàlla muusa ñu koy woowe waayu yàlla ji waaye ban yonent la yàlla wax yaa di sama doom maa di sa baay almasi bi rekk lañu ko waxoon ndaxte almasi bi rekk mooy ki jóge ci kaw juddoo ci janq te taqul baakaar yow miy déglu tey ndax xam nga almasi bi di buur bi yàlla tudde doomam yàlla dafa bëgg ñépp xam ko te déglu ko te gëm ko loolu moo tax yonent yàlla daawuda àggale saar wile ak baat yii mu ne léegi nag yéen buur yi am leen xel yéen kilifay kaw suuf déglu leen artu bi jaamu leen aji sax ji ci biir ragal tey bég ci biir weg sujootal leen doom ji ngir ragal meram jóg ngeen ne mes sànku ndax meram danaan milip wàcc waaye ñi làqu ci moom cëy ñoo barkeel kon fii lanu wara yem tey waaye ci coobareg yàlla ci émission bi di ñëw dinanu gëstoondoog yéen ci yeneen taalif yu yenent yàlla daawuda bindoon ci sabuur nu ngi tollu cay ci sunu juróom fukkeelu njàng te di leen fàttali ne dajale nanu njàng yépp ci ay kaset su ngeen leen bëggee am ngir dégluwaat li nu jàngoon ca ndoorte la ba fi tey mën ngeen nu bind te dinanu leen wax naka ngeen di def ngir am leen sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub PP 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li daawuda bindoon ci sabuur naan jaamu leen aji sax ji ci biir ragal tey bég ci biir weg su jootal leen doom ji ngir ragal meram jóg ngeen ne mes sànku ndax meram danaan milip wàcc waaye ñi làqu ci moom cëy ñoo barkeel